بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين مبكي jullit مبكي تالبي taalibe yi ñu ngi leen di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ci Ahmadul Makhtar xalifa Daaru Xuddoos ak mbooleem njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha gépp di ndokkeel itam wilaaya bi organisé fédération bi ci njiital Serigne Moustapha mu soxna Astou ambassadeur kàddu yi gàtt lay doon nit fu mat a wax lépp wax nañ ko damay xanaa xamal nit ñi ñi nga xam ne ñoo fas yéene tënku ci xel ak xalaat pas-pas ak koom-koom ak xereñ ci nga xam ne bëgg nañ koo def muy raay bi raay bi boo ko waxee di nga wax xaadimu rasul mi digle jumaa ji te bi jumaa ji laataan am raay bi war a taxaw dañu koy fàttali ngir wa zakkir fa inna zikra tanfa'u bi mu rëddee quatre sur soixante jumaa ji donc dañoo waxoon ne kii day gént loolu lañ jàppoon Cheikh Mamadou Moustapha ne jumaa ji mënta si ci raay bi nekkoon da ci yokk raay daa dem loolu daloon na rasulullahi alayhi salaatu wasalaam su fekkee ne pas-pas ak gëm li nga xam ne moom la sëriñ bu digle motax tax yi wala sénégalais yi wala africain yi di mëna taxawal dara war nañu mën jël référence ci cheikh moom moustapha mi sembon seen bu rëy bi ci jamono ju jafé jafé jafé muy contexte mi crise 1929 xam ngeen ko légui ni wax nañ ba tudd jëmm mënuñu ko ñàkk tuddu muy cheikh ibrahima fall daa am lu jiitu raay bi muy jumaay njareem te sëriñ bi doon laaj am te doon laaj tem ñen ab këll jëmm ju sant caab mu jóge fa mu jóge cees sooju mu jëm si njaareem jox ko fetal ne ko lu dox sa diggante ak moom am ko doon santu mu ne dox sa diggante moom jëlal bakkan këll bu fees ak dërëmi ngurdu loolu dong lañu wañu ci jumaa njaareem kon loolu la jëf ak pas-pas mënu ko weesu ñu soo ko ñëw ci raay bi nga xam ne bi fàttali nañ ne léegi lépp lañ ci jëf ànd koog yoon murid yëpp nag loolu la bëggoon a fàttali ci tënk Cheikh Ndigal su fekkoon ne tey jii dañ naan 40 kilomètres yii 45 wala 50 yi nga xam ne moom la Cheikh Moustapha defar ne dañuy laaj 100 milliards kon 50 yow yaa ko joxe loolu mooy vérité historique. te mënuñ ko ñàkk fàtte faaw ñu fàtte kon mu ñëw ci présenté ñi nga xam ne ñoo fi toog ñu war a ànd ak ñoom sumb liggéey liggéey bi incha allah dama ci jiital Serigne Makhtar Sarr muy ab dong di mbokk di wëllëri ci kër gi jàng li ñu war a jàng xam li ñu war a xam am yar ak ba soko gisee te waxul ak yow dang koy jappé ab dongo bu xamul dara jangul dara yoon mourid lu nek ngi ci bir dama bëgg rek ñu ñaanal ko ngir serigne touba teg ko fanam te li nga xam mom lañ lañ and ko ak mom ñu yeggale ko ba sumbu yeneen naaw mu nek sama mi ngi ni sol li ñuy wax bayilat bi ñen ñi naan is tarxiya di nuyu ñi nga xam ne ñooy ñoom la fi état bi yónni te ki ko jiite di Serigne Samba Ndiaye du ñu ñëwaat ci présentation bi dégg ngeen li Cheikh Serigne Cheikh mu Serigne Abdou Latif wax fi mu jaar ak Cheikh Mamadou Mountakha suñu kilifa pas-pas ba mu am bañ ko takkalee ndombal tànk ak bëggam bëgg jëflante ak sëriñ bi ak yoonu murid ñu wóolu ko ci biir loolu jox ko. lii nga xam ne mooy li jëm ci raay ci biir Sénégal mu fas yéene ànd ak lëg noonu liggéey bi ci anam yépp ndax liggéey bi dafa laaj xam-xam dafa laaj xereñ dafa laaj koom-koom loolu mooy indi nit ñi nga xam ne danañ ci mën a yaxantu ngir am lu ñu seen kër kon ñu ngi koy sargal di ko ñaanal suñu boroom dimbale ko mu ànd ak noonu liggéey bi yeggale ko am na ab structure kuréel bu ñuy wax M&A capital foo déggee capital xam nga ne koom-koom moo fay dugg ndax raay bi du njaareem Touba dong amaana bu doon loolu dong lañ soxla kon ngir defar ko bu kàddu sëñ Mountakha jibee murit yi mën ko defar waaye dangay jóge ndakaaru ñëw jàll si Touba jóge ndakaaru dem ba Tiwaawan sax loolu bokk na ci li ñuy waxtaane fii tey jii GTS mooy structure bi nga xam ne état bi moo ko samp ngir mën na saytu lépp lu jëm ci raay ci biir Sénégal ñu bëgg ko dekkal bu ko état bi ànd mënta def moom dong mu sas ay nit ñu ànd ak ñoom def ko loolu mooy ci terme terminologie bi ñuy wax PPP mooy public private partnership public bi day ne nii privé bi ne nii ñu ànd lëkkaloo liggéey ci xam-xam ak xereñ ak koom-koom ànd nañ itam ak GMD mu nekk société boo xam ne ñoom ci loolu lañuy liggéey li ma lim nii <coughs> sëñ Maxtaar dina ñëw ci ñi mu représenté man mii ma représenté waxoon naa ko société bu ñuy wax Bechtel ca Amérique ak société bu ñuy wax GMD Holding ca Singapour ak beneen société bu ñuy wax Aecon ñoom ñépp ci ni ma ko tënkee nii ci xam-xam ci xeriñ ak koom-koom mën nañu ànd ak ñun ñiy def ko kon sumb bii warta mën a doon luy lu luy tardé dafa war a gaaw te fi bokk na ci li nga xam ni moom président Macky Sall bëgg na ko bàyyi fi lu kon na fi lii ci tënk daal loolu mooy wax ji loolu mooy euh, présentation bi di nokkeel suñu bokk chinois yi nekk fii ni haaw di leen xamal ne ñoom lañ fas yéene ànd ànd ak liggéey ànd ak ñoom liggéey ci raay bi ngir ñu xariñ lañ ci raay ak ci domaine yu bëree bëree bëri sax nag te jàpp naa ne buñ ci duggee ñun ñu dugg ci ah sëriñ bi nga xam ne moom daf ne mbir mi mbirum raay bi muy njaareem Tuubaa mbirum boppam la sëñ mu taxaa loolu la wax su fekkee noonu la demee te Tuubaa di màgg màggin woo xam ne eh, mënee su koo takk wala gaaw na lool bokk war nañoo xel lu jëm ci jumtuwaay yoo xam ne dina indil njariñ dëkk bi ak waa dëkk bi rawatina ci xëy donc ngay lax saa yaa ngi fi dañuy lax saa yu génn duñ mën a am am xëy lii bokk na ci amaan leen nayum xëy ak station yi nga xam bi mën nañ ko fay def ci biir dëkk bi ñu ci yaxantu loola sëñ Maxtaar dina ci ñëw kon lii ci mooy wax ji di leen gërëm di leen sant te ñuy fàttali ne bu waxtu bi jibee nañu dëkk julli ji te ñëwaat yegale waxtaan bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu